day wax ne inna kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalaala wa kullu dalaala naar ñu wax ne gàmm ci la bokk ñu wax ne gàmm ci la bokk kay kon ñu ne ay màggal ak ay yëpp tamit ñu ne kon ci la bokk rek ay ñooñu ñàkk dégg esprit bi l'islam moo leen jàpp l'islam alquran ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan suñ borom dafa xam ne leen esprit diine ci boppam mat na waa gaañoo ñu kon lu waral xew-xewi caay-caay yu yuy judd léegi ulamaawul islam di daje di wutal loola ay àtte kon nañu wax ne yooyu yëpp bi daala sigaar mii ma la tuddaloon léegi day borom xam-xam yi ñeenti ñeenti rit yi nekk ci lislaam yëpp saafi yi yoon yi maalik yoon yi hanbali yoon yi xanaabila yi daje nañ makkatal mukarrama ëpp na ñaar mat na ñaar fukki at daanaka daje nañ makk wala maawul islam yëpp def nañ fatwa nee nañ cigarette dafa haram te kenn du indi benn aayab alquran bu tudd cigarette wala abadis bu ko tudd kon ki wax ne yooyu tamit bidaa la na wax ne àtte gaa yooyu ñuy ñuy sos di ko àtte tamit ay bidaa la monde islamique bi day lu xew léegi ñu ngi daje al mu jamaul fiq mu jamaul fiq yi bu moom la ko saoudie xam nga li ñuy tudde tajiru ruxum am na yu bari ñun xamaguñ ko ndax ak siwul waaye mi ngi daw ci biir réewu Europe yi maanaam lu yësab kol xam nga mi ngi ci àdduna kii di sëy jabaram bëgg am doom te bëggul jabar ji déformé wala daal bëggul kii am ndaw soo dañ koy fay xaalis mu ëmbal leen seen doom amee doom jox leen seen doom ñu dem hôpital ñu jël li am doom ci góor gi jël ko ci jigéen ji defal ko ndaw si mu ëmb bu amee doom wasin doom jooju joxe doom yi jàmm ñu fay ko ay million mu dem loolu xam nga am na ci àdduna bi hmm? léegi ulamaawul islam daje woon nañ def fatwa ci moom la ko Saudi loolu nu ko lislaam di gisee musiba yooyu di waaj a ñëw ban atte la ci lislaam di di di di atte lu bari ci ulamaaw yi dañu ne dañoo ñëw daal di ne su fekkee ne ñaari jigéen ñi ñoo bokk benn borom kër kii am sikk su nekk ci biir bi ba munta am doom waaye terewul bu way doye espèce su nen yi nekk ci biir mi ngi ci biiram nga xam ne moom c'est possible pour mu dajaloog spermatozoïde bi pour nit nit formé ñu ne am ñu ne dagan na su boobaa wujjam bii su ko mënee ëmbal ñu daal di ñëw jël li ci borom këram bi jël lee defal ko wujjam yi bu amee doom maadaama ñoom ñoo bokk berom bor borom kër fiira l'islam mën naa toloore loolu yenn borom xam-xam yi wax lool dañoo dem fanaan guddi ñu tiit nelawuñu dañoo xëy rek ñëw song si song song si eh, livre biñ ko bindoo kaye kaye daftar biñ ko bindoon ñu wan leen seen tur lu ñëw lislaam war cee def àtte kon ñu nga xam ne côté yooyu li ñuy tuddee ay bidaa ay bidaa am na yu baree bari yu nekk ci seen wet nañ ci wax hmm? gàmm du bidaa bidaa mooy loo xam ne esprit bi lislaam nanguwu ko gàmm yi ñu ciy def yépp chaque lislaam ko santaane gàmm buñ ci dajee lan la ñuy def jàng alxuraan sarxe waxtaane jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nett la ay xareem wax fi ko yàlla terale wan ne lislaam yëkkati jullit yu njëkk ña loolu l'islam daf koo santaane woon balaa gàmm di ñëw sax kon bu ñu sàkkee guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moo gënul lu lu yàlla sàkk guddi gi mu gën a jamono ñu di ci nettali jaloore l'islam di ci def sarxe di ci xoolante di ci bëggante xoole ngir jëmmi yàlla loolu ku wax ne bidaa la yaa xamul dara loolu ijtihaad la ijtihaad la mais tuddul bidaa amrun ijtihaad yi xam nga ne koor l'islam santaane na bu weeru koor passé l'islam fi ñu toll na ko woo waaye lislaam forcé woo nga nga woor nga jékki-jékki daal di toog ne ah man daal sama xol bi yëg naa ne dafa wow man daal sama bakkan bi daa xaw yare di ko fan yi daal naa woor ngir yar sama bakkan daal di dàkk Seydina Alioune bi ñu ko laajee gan jàmm yàlla nga gën a bëgg moo ne mu ne bis bu tàng ma woor ci ijtihaad a ngi noonu nga jékki-jékki nit ne la sëñ bi kaay ñu nga yaa man kat damaa woor tey ijtihaad nga noonu da nga ci am tuyaaba ju dul jeex sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku nekk ci aw ñuy lekk ka naan yow nga woor nan nga ne ñu dem ñu dem ñu dem xare gaa ya dawa yow nga des fa wala nit ñu toog sàggan di waxtaane àdduna di xal-xali nekk ci leneen nga teewlu yàlla di ko xalaat mel nga ne ku daw ci nit ñi daw ci toolu xare yow nga des ci toolu combat ba ci champ de bataille kon gàmmu ijtihaad la li ga li ñuy def ci gàmmu lépp l'islam daf koo santaane màggal yeeg daje yi julli yi def ziarente yépp jëfi lislaam la lañ fay def lépp lislaam doo ko santaane dajaloo jàng nangi ni mi kaamilu alquran te am na ci nit ñoo xam ne bu du toon daje booba duñu jàng kaamilu alquran daje yi ngeen di def nii lii lan moo ko gën a màgg ci lislaam am na ci bindeef yoo xam ne yëpp ku leen woowul ci jataay yii ñoom duñ ko ko woote mukk ba ba ñuy faatu kon yow mi woote jataay bi ngir ñu toog fa dégg lu leen jëriñ ci seen lislaam yow créé nga leen yoonu texe